aywa <clears throat> mi ngi ci ñetti bind yi mujj bind yu ci suuf maanaa noqtatu saalisatu est-ce que nekk na fi page soixante auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والقاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عزيم يا همة الشيخ أودر النباس المحضر والتعب في فيه بنصرة تعتنق النقطة الثالثة léegi ñi ngi nekkoon ci musaakara def na ñaari tomb benn ba mooy alxamdu benn ba mooy ziyaara annuqtatu point alsaalisatu bu ñetteel al itimaadu mooy sukkandikoo ala cheikh ci cheikh bi xat xani nasari nga dagg sa gis-gis xanil wasaayit ci ñi jaar ci diggante yi ndaxte koo xam ne moo branché direct ak ku branché wul mboolem wal wasaayit wasaayit mooy intermédiaire yi da ngay xaju ci Cheikh bañ a aju ci ñoom eh, ndax bi dina am muqaddam yi duñ ko nangu mukk jox seen taalibe yi Cheikh toog duñ ko def te li tax Cheikh wax ko it mooy gannaaw moom moo branchante wu comme ni nga gisee yàlla ne wax yonent bi rek ku ko joxloo man nga joxloo noonu la ko rasulaa ne ko asxaabu ko asxaab yi moo tax mu ne man yaarifu ni yaarifu ni wax ji kon nag loolu ngay def xaju ci Cheikh dagg sa aju yi nga xam ne waxuñ nga dagg dagg bàyyi leen walaw balaxta ak loo jot jot maa balax lañ mën la jot mel fana ci jeex fii ci moom ak loo jot ci jeex bu koy koy yow bul yaakaar ne sa jeex bu koy googu dangaa romb séex wal jamoo dajekaay ba ali ci moom ndaxte moom mooy ndax groupe central bi nga xam ne moo da dajale mboolem Euh, poste yi waltu commune na nga matal almaabata mbëggeel war a jaa ak yaakaar fii ci moom faxaasa wal lii na koo moom al ak këmala mooy li gën a mat ci xajinu taalibi diggante taalibi ak sëriñ sëriñ Cheikh lii mooy la gën a mat euh, wa in kaana même bu nekkee al ku jokkoo bil mutawakkili muttasilun dañoo wax ne ku jokkoo ci ku jokk dangay ngay jokk xam nga loolu nit ñaa ko wax mu ne ca muslim loolu nit ñi wax ku jokk ci ku jokk jokk nga mu ne kon nag famille baabi awla al muttasil fi gën a raw bi nga xam ne moo gën a di yàlla kay mooy nga xam ne mooy ki jokk moom moo jokkale yaakaar naa ne kon boo jokkoo ci moom moom nga gën a tee jàpp almatul bi cheikh ki jox ko cheikh mubaasarat direct ki jox ko cheikh direct kooku mooy ko xam ne rawat na ko fa innakum yéen ayyuhal ahbaab yéen sopp yi ah ixtartum moom la de aqastum kon aqastum jàpp ngeen hani cheikh cheikh mubasaran rek yéen cheikh yan ngeen jëlee rek yéen ñii ndaxte xaraa si nitu euh, yonent bi cheikh yan ah nee na moom nga xamante ne moom mooy moom yéen ñii nag am ngeen sansu yéen nga jàpp cheikh mubasaran ah kon nag euh, lii wal muxram woon nañu xiir ci mbëggeel kasaalika na ko noonu ku yàlla xiir ci mbëgg ba bëgg seex seex ñoom na bu ñu ne seex caa buñ ca tijaan xam nga seex li mu wax ñaa xam ne ne xiir ci mbëggeel ba tey comme noonu la ñoom ña nga jokk ca jokkuwaay ba kon nag fax tamit doo na ngeen sukkandiku ale ci seex wasiqoo wasiqoo ngeen dëgërlu bii ci moom fay na saalika sukkandiku ci moom dëgërlu ci moom yësul dafay dolli al imdaada tëbb kenn ku ne sa doole yi xaju ak sa doole yi dëgërlu nu mu gën a dëgër rek tëbb gi gën ñëw loolu tax ma ne kon nag aju leen ci moom fay na saalika yësilul imdaada wa yukmilu ci lañ matee almurid taalibe ci taalibe yi matee dégg nga ci lay gindeekoo leer saariñ dem ci yoonu jub yoonu jub foofu lay jaar bu gisee nii ci lay mën a mën a gindeekoo jaar ci yoonu jub fala yaxfaa umpul aleykum ci yéen ana naka àndooya àndoon ak rasulullah salaa afdalu ñoo gën ñu ne taabiin ñi ci topp wa taabiin ñi ci topp afdalu ñoo gën min taabee taabee ña topp ci tàpp ña topp ya ñoo gën taabee ña topp ci taabee ñoo gënaat wamaa daama fekk seex nekk fekk sax na seex seex moo joodan kon nag fasiroo dox leen taata si li soobati yi ci ron keru àndoom nga fekk seex am te du jóg ci amam nga dox leen ci ron ker ak àndoom nga wotru ko bàyyi leen atta bi atta yi nga xam ne mooy toppi gi wa taqlidi wala ngeen di roy nga seetal ak del googu ni mu guddee rek raa googu na ngeen bàyyee tabia baanaa seen habitude yi jikko yi bàyyi leen kenn ku ne jikko yi fële ak ngeen roy li man waraa comme ñu nekk seen gannaaw billaahi li nag moo ñu rey ñun dikk ba ci kër baay ngay jël sa aaday eh, eh, sa aada ya wala si jikkoy ñeneen ñi dikk di ko doxal ci kër gi fii misi ne bàyyi na loolu la ngeen toppoon ak la ngeen di roy na ngeen na roy laata ngeen ñëw fii na ngeen ko bàyyi waraakum ah, ci seen gannaaw xam nga lu ma leen sant fàttal naa fotoo na ngeen jiiroo wa ko na ngeen kurtuwante fii ci bàyyi fii ci seex lii laa leen wax bàyyi leen kenn ko dikk ci kër biir kër ah léegi nag yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa la ñu ee yéen ñi xam ne dugg ngeen ci lislaam dugg leen fi silmi kaafa boo ko diggee mooy doo dugg ci lislaam suñ aadaay maam yaa suñ baaxi maam yaa nga bëgg ko doxal aadaay maam ak baaxi maam boo ko doon lislaam mënuñoo ànd waaye fii boo fi dikkee ah dangay bàyyi nag aada yële moo tax man de damaa dégg ci nit ñi man damaa man boo nit bu wax man biir bu boo wax damaa dégg ci nit ñi rek toj nga sama xol bi moom yow doo wax ko di ban nit déggee naa ci bàyyi tey ñun doy loo war a dégg rek ñu ci biir ñu ngi ci kul kul voilà waaye kuñ ne borom xam-xam la tey maa ngi koy dégg ci ah, fanikat nii le yow jël nga Cheikh Tidiane ne defu ko ay kàngam ñi nga xam ne ko doon defu ko nga ñëw ci bàyyi defu ko ña ko son defu ko kon nag nga dem nag jëriyaat yeneen ñoo xam ne ñu ngi ca gannaaw ah ba mu naat ñëwut nga jël ñeneen bëgg leen sukkandiku def loolu naar yi wax bàyyi la nga toppoon watru ko at tabiata wa taqlida liman waraakum fatanafasoo wa tasaabaqoo fii fal waxtu heure bi ñu may xasirun dafa gàtt heure bi yàggul de gaay wan ma loolu te liñ sàkku siin ñun xasirun dafa bëri heure bi yàggut te liñ bëgg ñu def ko dafa bëri ah waman sabaqakum ku leen raw fi duniyaa ad fi duniyaa ci àddina mu nekk ay milliardaire nekk ay milliards yow doo leen ko kon nag yéen li ma la wax fa yu makkinoo dina jàppandi an tos bi ko ngeen jiitu ko fil aaxirati alaaxira ku ne raw ci àddina ah, dana jàppandi ngeen raw ko ci aaxira bi te rawlante aaxira ah, moo gën a foo rawlante duniyaa ndaxte fii ah, duniyaa moom faani la aaxira baaxi dafay des moom kenn kon nag mu ne ku ne raw ci àdduna dana ngeen yomb dana yomb lool ngeen raw ko ci al aaxira waaye wama sabaqakum ku ne raw ci laay ci laaw fa asa fa loolu laa dawaa amul garab loxo ñeel ko laa ilaha illa yàlla seen ci yàlla jàngoro kenn ma ko faj Eh, seetal yi min min minimise faasa laa dawaa am jël laf gi dañ ñi ñuy binde waaw wa ini man misri day la aqul maa ma wax la comme yeneen dawaa man toujours dawaa man faw maa ngi bi ana laa naka laa tafadala baaxe na ali naa ci yàlla baaxee nañu de ñu ne misri mu leen baaxee bi an jaal naa bam ñu boole doom ñu defee min ummati sayyidul ñu bokk ci xeet sayyidul wujjoot sallallahu alayhi wa sallam allati xeet ba xam ne moom afdal umam bi moo gën ci xeet yi nañ sant yàlla bañ ci yàlla boole wa jaal naa mu boole def ñu min asaabi Cheikh Tidiane ñu bokk ci xam ne ñoo ànd ak ñun ànd ñun duñ taalibi Cheikh Tidiane àndandoo Cheikh ah moom Cheikh Tidiane afdalul awliya moo gën ci lu yàlla jox def ci wàllu yi wajalana ba tey mu def ñu troisième position min aadil faydat yi ñu bokk ci gaa yi faysan booba maa bàqee desul la na ñenn ñi ilaa an natasaabaqa lu may ñu course xam nga lu ñu war njëkkalante lañu war moo ñu dara desul ñu lu may lu may njëkkalante fa isan ma baqiya lana ila an natasaabaqa hatta la nus bokk ba kenn ñu raw saabaqa nus bokk lii boo jàngul arab yi piré piré piré mën ngaa mën ngaa kii li war ci ñun mooy ñu kursu ah ba kenn ñu raw faxaasa lii xoo moom aaxiru mawqifam mooy mujj ak taxawaay lil musaabaqati course dernière course fii nii course bii moom sànni tàccut ku fi gañe raw nga kuñ fi gañe daan ko waa loolu daal ma ngi xamal faxaasaa bii fii ñu taxaw yàgg naa ko wax mooy jàggi siraat faxaasaa waa aaxiru mawqifin lil musaabaqati kon nag mbokk yi ku nekk foo xam ne bu ñu la rawee ñàkk nga fasraon gaaw leen yéen gaaw leen wajidoo ngeen farlu góorgóorlu ngalawaay mbokk yi laa taqranakum mu nax leen alxayaatu dund adduna bi nga dund adduna bi nga dikk fi de topp de ut nekk dugg ci kër baay de uti ay taalibe ci biir kër ay ay kii ah ba yàq sa liggéey ñun taluñ taalibe taluñ dara tal bokk ci rek mooy suñu liggéey kon nag wala taqranakum hayat dunya wala yaqranakum boo war leen bi laa ci àlla alqarar warkat bi ah ki nga xam ne mooy iblis loolu ah tomb bi foofu la foofu la jeexee xam nga lii mooy musaakara musaakara mooy fàtt loo xamante ni buñ ko fàttee ñàkk suñ ko fàttale koo jëriñ kon nag a noxtatu rabiatu tomb ñeenteel wal axiratu te mooy mujj ilamoo xam leen anal yaqiina naka wóolute kal aqli dafa mel na xel dem ba am na lu wóor wa innahu moom nag yan xasuma dafa séddeku ilaa say say éni jëm ci ñaari yëf wax bi yun xel moo xamante nii may la wa kas bi yun ak boo xam ne dangaa góorgóorlu ba xam xam nga buñ ne xàqala mooy nga xam benn xam ñaar xam ñett firi jàmba da am xam xaraf yi dem baat yi dem xam nag lu muy firi kooku yaaw yaa dem xel mi nga di ko tamba tambal da ko tamba tambal ba mu màgg am na boo fàggu la am na wax dégg nga maam maye la ak bokk ak fàggu benn ci moom ah daal lay dolli ko bi tajribati boo koy essayé ah, xel moo xam ne xelam fàggu tef la ngay essayé xam essayaat xam di essayé di xam ba mu éleex gën a évolué de waaw mu daal di gën a nag ñu seetal fi xel xàgg tey ci technologie ak mondialisation mooy awlama loolu xeli kas bu moo ko fi indi dama léegi téléphone dañ ko daan def par poste passé la yi nga dem buur boo xam ne moo doon buuru njëkkee balaa man jot day yàgg tey baadoolo yi jamono bii ni ñuy téléphoné <laughs> ah kon na lu ko indi mooy xel moo xam ne dafay góorgóorlu istaado bi tajribati waqat jarab naa ñun natt nañ man a essayé nañ seetlu nañ bu baax a baax a baax bi ashaabi nabi ñu àndoo yont bi ah, gis nañ ne saaba ya anamal naka képp koo xam ne basala joxoon na soo ba kanam wa maalahoo ak àllam lay ñeel yàlla gis nañ xool xool nañ ci suñ gis-gis ñu gis na ànd àndoo yont bi ña nangoon a joxe seen bopp ak seen alal ah laa yësi doo du ko doon saalik loolu ilaa isa nu may teraanga wari fatan ak yëkkatiku waqiran ak koom wa oloon ak kawe kon lii ñu toll tey dama leen ko wane ci li paase woon xool leen yonent bi ñu ñam antoon ñoo ngoon jël seen boppa seen alal volontaire ko jox ko yàlla lu mu leen defal du yokkal lu leen mooy tiraanga yëkkatiku koom ak gën a kawe xend lay falaaw wa in kaana bu nekkee masar nu bóoti yi feeñukaay nu bóotam laa yuwaasi du tolloog masarun benn masar feeñukaayam benn feeñukaay tolloog moo xaqiqatan ci dëgg-dëgg wala tusaabiha dunoogum xaqiqatan benn xaq déedéet xaqiqam ba poids ba kenn yoroo ko kenn yoroo ko moom moom na bi nu bóotu daa ndaxte nu bóotu euh, dafa nekk loo xam ne waxut risaala nu buur dafay nekk loo xamante ne wàññi leen suñ koy nit dafa koy wàkkee nu woy euh, moo tax xàmme toujours nu bu nu bu ëttu dafa nekk lu xawaat doy waar kon nag amul loolu dafa wax ak xatal laakin al ki nga xam ne mooy feeñ àll si kaa xam ne moom moom eh, moom mi nga xamante ni moom ma yàqatu Muhammad yi feeñeekuwaay la moom maanaam nubuwatu bi li lay moo tax daal gis nga li ñu bëgg a wax daal da xaw day xaw a jafe wax nubuwatu yi mooy mësarul laaxu Euh, kon laaw mooy mut saay foofu mm-hmm. waaye tasaawuraat boobu kat tasaawuraat bu tóon la tëjali bu tóon la ndax nu bootu mooy loo xam ko dañ ko ci dañ ko def kon nag loolu la wax ne laakin al mutasaayiru allazi huwa allahu waahidun woo moom mutasaayir ba kooku moom mësër ba mësër ba joxut kay kay borom mësër ba mooy joxe te kooku mooy laab al mu'ti mooy ka jox li jëmee ci képp moom kooku mut saay ba xam moo def tasoor moo def mu jël moo jël nëbboot def ko muy mësërëm moom moo joxe lépp wa kullu man képp koo xam ne taqaraba wut naa jege ili coom sibran lu mu toll nag sibra sebre mooy ah, euh, genn wàllu mètre bu ko xaajee ñeenti xaaj loolu mooy sibra ku ko dox ilay jëm ci moom ah dégg nga man eh, sibra taqaraba def ut a jege moom ilay jëm ci moom si si la àndatu naka xasam mësër bii loo tax ne ku ko topp mën nga topp mësër bii boo ko boo boo dikkee mutasaayir ba nga xam moo ko def moo koy manifester soo ko jigee sebre moom mu jógee la xasab xasab mooy genn wàllu mètre ah kon nag wa xasaayinu fadlihi magasin wu ngeen lam ya magasin wu ngeen lu ya laaxu ya maa saala jogoon moom loo attand lu ñu ba fees magasin ya nuñ ca gën a tànke rek moom muy gën a fees fay saakaara mu nekkee kon nag almuallimu jàngalekat isaa alam bu xamlee say andara laa yem tuuti wàññi saalika loolu mi muy xamoon xam ak sëñ daara ak ustaas su jàngalee ay elaw wala ay e, ndong du wàññi ci xam-xam ba dara xanaa er, du dafa yokk xam-xam moo tax ñu ne ku jàngalekat bu la gën di jàngale pour boo bokkoo ni ñu jàng moom muy jàngale yow jàngale woo moo la ëpp xam-xam ndaxte xam-xam ba day gën a yokk kon nag euh, magasin u ngëneelu yàlla yi noonu kon nag euh, fal alimu aji xam ji alxabiru ki nga xam moom la dara umpul min baa bi laa moo ci gën a yàlla xanaa gannaaw ñi yàqal xam ne dañ may rek xam-xam suñ ko jàngee du wàññi seen xam-xam xanaa ki nga xam ne mooy jëmi xam-xam te dëgg ki umpul xanaa moo ci gën a yàlla wa kama la yettimu na nga xam ne du mat imaanu ahadina ngir nga ma kenn ñun isa isaakar nu ma ne dafa nekk rasulaay sala salaam lu mooy moom yonent bi sala salaam ahaba ilayna mu ëpp mbëgg ñun min anfusina suñ bakkani bopp yii na nga gisoon loolu ngëm yàlla munta tamat soo tudd yonent bi moo la lu moo la gën a sa bopp fakk saalaka xalifato xalifa yonent bi ah moom itam noonu la mel moom itam moom boo déggee samay firi démb bi maa ngi koy wax ah kon nag indi la seen yu bàyyi ko indi maa yu bàyyoon na léegi toujours ku xamante ni ma nga toog ca place bi rek kon nag ku jaante moom kon nag nii fa kasaalika xalifatoo ah, kon nag war na ci ñun annu yi baxoo ñu bëgg ko wan nu atimuhoo ñu fonk ah wa da nga wa wannu jaahidu daf koo daf koo xam dafa sori tomb fi mu ko def wannu jaahidu ñuy góorgóorlu fi sabilihi ci yoonam wa da wa bi anfusina ñun war nañu góorgóorlu ci ab bi anfusina waa am wàll naa ak suñu alal lii war na ci nga xam ne moo dikk di xalifa rasul ba ca nam doon tëbbee ca tëbb ka war na ñu defal ko lii wala nartaab te buñ sikki sàkkanaan nii la ak naa wa qaala taala innaha innamal mu'minoon daf ko def gis bor ko daf ko def xaa waaye innamal mu'minoon innamal wér na nekkul ñu gëm ñi allazina lu dul ñi nga xam ne li nga li wax illa allazina wér na nekkul ñi nga xam ne ñoo gëm lu mooy ñi nga xamante ni amanoo gëm nañ bilaa ci àlla wa yi gëm nañ laaw gëm nañ ndaaw la su ma lam yattaaboo te teguñ ca sikki sàkk wa ñu def góorgóorlu jaat bi am seen alal wante seen bopp fii sabilaay ci yoon yàlla ñooñ ulaayika ñuy humu ñoom asaadiqoon ñoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon nag ñii boo déggee moom yi moo ñii dugg ci ëttëb musulmaan nag taw nga jàll ci ay ëttu moomine yi ndax li ñuy wax alquran rek moo ñu mooy qaalatil arabu amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulil kon nag ku yàlla dimbale ba nga dugg ci daayiratu imaan ba dëkk ba mën a dugg ci xam xalifa laaw bi nga man koo xam ne kii kat la ma waroon ci yonent ba moom war ci moom foofu nag mooy imaan fi gën a jëfe nag seet xoola de te it ma mooy maqaama siddiqiina yi waa kon nag wulaay ko mu asaadiqoon ñoo dëggu ci lañ waxoon ba nga duggee ci islaam ah nangul nañ la waaye nag dëggu gi rek mooy bëgg a dikkee ci daayatu iman bi foofa xanaa yal na may ñu saas ala yaa ko ak yéen li maa yuy bu bëgg la wa yarda ak lam gërëm la amin yaa rabbal amin waa daawaa yal na saafara bi ma ni ci toolam nga xoloo bana suñ xol ya almadaay feebar yi ñun ñoo ci raw wasalaam Mouhamadou Misri mille trois cent quatre-vingt-dix ci la defoon lettre bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sey waay sey waay